221, une autre vision de la télé. ginnaaw génn premier ministre bi di Ousmane Sonko ci li nga xam ni moo di yu ñu tere élèves yi di muuku ci yenn école yi mu ngi woy di indi ay problème fii si alma di ñi fi yeewoo ñenn ñi di wax ni ànd nañu ak ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko waaye ñenn yi di wax ni ànduñu benn yoon ak moom ndax école bu ne dafa am nu muy doxee gannaaw sorti appellateur Ndiaye yi ñenn ñi di wax ni dafa comprendre li nga xamante ne rek mooy kàddu yu Ousmane Sonko yëkkati looloo waral muy àdd

Nous tam tous les dañuy chrétiens nous avons des parents chrétiens nous vivons vivre en ensemble nous amul benn problème donc nous nañu bàyyi ku mu religion comme nous l'avons ko C'est man loolu ci mais il mun a indi polémique waaw. merci beaucoup bon xam nga Ousmane Sonko c'est le chef du gouvernement mais il day génn hors sujet parce que problème voilé, voile c'est déjà réglé.

donc école privée ak école publique dafa am différence même France ci boppam école privée yi ci école publique bi moom la état bi organiser ni pour ñu bañ a ràññee kii eh, eh, musulman la ou chrétien la ay croix ak ay yooyu yëpp ñu interdit ko mais je pense que ni amul benn problème waaw ku nekk yow yaay tànn fu la neex nga yóbbu fa sa doom mu jàngi. non loolu moom du yoon parce que Sénégal moom pays laïque la vraiment loolu moom ñu ngi koy naxaroo moom. ñu koy naqaru parce que ay xalé yo xamné ñi ngi dëkk ville xamuñu fudul école école école chrétien yi manam ñu koy waxé xam nga parce que so xolé privé yag na fi privé bu ñëk ba école yi nekkon fi yépp nekkon privé nekku ñu an ay école bon bu ñëk ba ay école privé yépp école chrétien yi lo won quoi xam mais légui lañu duggal privé yi ku nekk di ubbi say école ak yoy mais avant sacré cœur Saint-Michel cathédrale yooyu ngay dégg Jeanne d'Arc équipe euh, école yooyu yëpp école labé la woon quoi te ba léegi sax ay maris ñoom ñëpp école labé mais doo mun a doo doon mun a xàmmee kii doomu doomu musulman la kii doomu chrétien la mais voile nag moom xam nga rek xale yi dem nañ sax ba benn jamono jamono sax kii lañ ko def euh, mode lañ ko def am na ñoo xam ne mode lañ ko def jaaw bi mais par contre nag ñoom ñoom ñoo koy gisee neneen

loolu rafetul dëkk bi ñun ñoo ko bokk waaw ah, nañu nañu jàppale gouvernement bi ñu dem waaw ah, nañu jàppale xale yi nga xam ne ne xale yi nga xam ne ñu ngi jël gaal bi ba amatuñu espoir toog fii ah nañu jàmbale jàppale groupe bi ñuy nekk fii tey ñu ñi def ay xale yu ndaw ñu ñu ñu ñu am ndam suñu amee ndam Sénégal am na ndam. établissement boobu établissement catholique la de man loolu moom si jaaxal mu nekk établissement catholique mhm. doon privé catholique. Eh, mais boo port de voile am na règlement intérieur bu fa nekk mais musulman yi nañ bañ a yóbbu seen doom foofu rek man loolu laa gisee si côté boobu dañ bañ a yóbbu seen doom foofu. léegi nag si école yeneen yi moom kenn waru fa kenn waru fa tere ku nekk rek lii nga gëm loolu nga fa war a dundee parce que école publique la ay école kii mais école boo xam ne dafa am règlement intérieur booy inscrire ñu jox la règlement intérieur nga liir kër ba d'accord ba accepté ko boo fa inscrire sa doom da war a respecté règlement foofu loolu mooy sama xalaat. man lolu gis na ne mu ne indi polémique bu graw d'autant plus que ci ñi mu joggé la parce que ay homme de voix lañ euh, euh, Sonko c'est le premier ministre du Sénégal kenen ki def réflexe évêque la donc ñom ay nit la ñoo xamantene ay nit euh, yu drainer ay nit lañ donc ñom bu fekkante ne wuñ ci benn gis-gis rek ba génné ko ci média yi ba mu fess ñepp dégg ko mu ne indi ay problème man nak ma du di woo que doomu sénégalais sénégalais yep nag ma sans distinction de religion que ñu xam son Sonko li mu bëgg wax man diapreman man sama naan entendrement dafa bëgg a wax ne ku nekk war na mun def li nga xamante ne religion am te ni ko ni ko ko recommandé te problème du am voile dafa ànd ak peut-être musulman moo ni nit ñi di ko def. croix bi ko ko porter aussi nga porter ko y'a xam foo ko mun porter pourquoi pas nag non non munu am problème te feneen fi war a mun a am problème porter voile war a am problème. buñ ko bëggé ni problème parce que dañ ko bëggé ni problème rek mais gox bi warul yegg fi nga xamanteni fi lañ ko xaccé ni waru fa yegg sincèrement ma ma xalaatoon ne nag nit ñi nañu xolaat suñu boppatu baax am entendrement aussi parce que mu na indi problème ah mun na indi problème bo xamné day sérieux té day répercuté wu suñu vie sociale té amul sens vraiment mënul créer ben problème dañ koy mettre en l'ordre rek dañ koy xamal bopam xamal ka la wara wax parce que mom fa mu demoon la ko fa yóbboon ci lor rek la waroon wax donc limu mu dugg nii di ci wax motax ñukay tontu parce que lolu lu xawa jaxase la te lolu du du du rolam donc je pense que ni mënu am ben problème entre les chrétiens et les musulmans aucun problème du mëna am sen diggante ci wax Ousmane Sonko boobu. non non non non Sénégal xam nga rek Sénégal mom politiciens yi ñoo nekk suuf rek di yax rek mais xam nga sénégalais suñu waxé tay 2 jours 3 jours ñu fàtt ko wax leneen parce que dëkk bi dëkku jàmm la waaw. Sénégalais mom du day japp mun na jàpp mun la japp légui légui dans mais su ëllëgee deux jours trois jours mu faté ko. lolou yépp après parce que loolu li man li may wax ni damay né Ablaye Wade dafa xamone sénégalais yi ba nga xam ne tamit comportement yi son am mom la doon am. su togué benn jour deux jours rek kenn waxu ci mom rek mu jékki-jékki rek suli lo xamné né ne soo gaay waxat ci mom si su ko défé ñu faté yi nga xamné né mom moom la ñu war a après soo léegee mu indi wat lénen encore mais son Sonko lu mu wax ni man gisuma ko vraiment lo lu lu tax ñu fiy nekk di xam nga di ko di ko polémiquer. waaw xam nga Ousmane Sonko dafa war a xam ne moom premier ministre Sénégal du citoyen ordinaire actuellement nekkoon na ko mais nekkatu ko parce que euh, premier ministre de la République du Sénégal euh, waxuma amul droit intervenir si yenn mais bu wax dafa war a xool bu baax li muy wax parce que waxam dafay wuteex sama wax man. donc loolu wax jooju mënoon na éviter amoon na nuñ ko sama gis-gis amoon na nuñ ko waroon mën a régler bu ko keneen une personne làmb daa waxoon kenn du kenn du si am lu ñu si wax mais c' est le premier ministre du Sénégal donc am na yoo xam ne daf si polémique yoo xam ne waru si dugg nekkatul un opposant nekkatul un citoyen simple donc am na yoo xam ne daf ko war a éviter sama xalaat. Abib bi li mu def man sama jàngatu bopp mooy que man su ma nekkoon place am du ma ko def. parce que rang ba mu tollu la bu ma ko man mi du am ben porté mais mom bu ko waxé day am porté bu muy jël té dafa am ñukoy koy suivre te ñukoy suivre ci lim wax la japp té te indi lo xamantene ne problème lay indi. moo tax nak ñoom ñi nga xamantene ne yalla da leen dënk ñu leen di déglu bu ñuy wax nañu xam nañuy wax bu ñuy wax nañu xam nañuy wax parce que lo lo jëndé jëndee rek jam ko gën te suñu Sénégal gi ni lepp mën nañ ko fi wax bam dess des jamm lañ fi mos xam depuis suñu mam ya ba légui ci jamm lañuy dundu en cohésion parfaite lañuy dundu donc nak bu ko kan yak may def nak appel nak di wax nak sénégalais yi de tout bord que ça soit musulman que ça soit chrétien nañu ñu xam ne li Sonko wax man la japp ne amul ben problème ku ko bëgg a xëcc nag yóbbu ko fenen fu mu ko dem mom moko fa yobul bobam mais Sonko waxul lu ay chrétien sol ay sol ay les chrétien am musulman bi sol musulman amul lu mais ku ci nek la nga xamne yow mom ngay dundou mu nek sa xol yow xam nga ko yow yakay defal sa bop donc nak leneen li man dama ne dal euh, ay la dal teru ko dal amna ñeneen amal solo que ñuy wax ci affaire ay musulman chrétien ça doit être dépassé dans la vie actuellement war nañ ko dépasser. Sénégal tollul fofo, Sénégal fal nañ toll moy que fal la nan la def ba mëna avancer mais ay kuréel instantané yi amul sens amul ñu njëriñ ça ne mène nulle part man dal lolu mo nekkon suma xalaat. mais abbé bi daf ko mettre daf non non daf ko mettre c'est-à-dire à l'ordre pour mu xam rek lan la wara wax c'est tout du lenen abbé bi rôle la def Ousmane Sonko mo bàyyi rôle donc Ousmane Sonko la ko yóbbu woon mu waroon sargal élèves yi jox leen seen ay prix ci loolu la waroon yam li mu dugg moo dul domaine am voilà. Ah, abbé bi moom xam nga rek ku nekk sa gis-gis ko waaw abbé bi bon xëy na wax na xalaatam xëy na loo xam ne ne bon am na ñoo xam ne peut-être bëggoon nañ ko tontu xamuñu ñu koy tonto bon moom moom mu jël risque bi mais xam nga rek mais xoolal rek Serigne Mansour suivre naa ko démb. mooy sëriñu Tiwaawoon bi mais moom tamit lu mu wax tamit lu ñëpp déglu nañ ñëpp dégg nañ lu mu wax nee na voile bi moom yàlla moo ko santaane waaw jigéen moom du yoon sax muy dox yéen sax du yoon sax ngeen di dox xam nga bopp nen waaw loolu moom du yoon déglu naa ko bi mu koy wax moom xam nga rek moo tax ma ne ku nekk sa xalaat rek mais jaru ko quoi daf ko jarul dëkk bi nu ñoo ko bokk nit ñoo ko bokk waaw. loolu laa wax quoi xam nga bu doon bu doon perte keneen keneen ku dul Ousmane Sonko bu doon un citoyen normal euh, nit ñi caw caw li sax du am mais abbé bi dafa wax xalaatam daf ko tontu rek parce que abbé bi di mu wax ma liir naa ko gis naa ko si net bi dafa wax rek seen participation bii coowle abbé bi kenn nanguwul wax ñoom ñu jëloon position je crois loolu rek la fàttali loolu la fàttali nit ñi quoi mais du wax ji daal mooy Ousmane Sonko en tant que premier ministre moo war a xoolaat taxawaayam rek bañ dugg si yenn yi quoi. un problème chef de gouvernement opposition la nekkoon ñam nguur trois mois di di a lu la neex nga wax ko mais gars yi wan la ni li ngay wax waro ko c'est tout. À 221, une autre vision de la télé.